pour vous aider à réaliser vos rêves. Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core T4, le smartphone Core X4 et le téléphone flottant Shark X3 sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. très performant d'une très grande résistance, éprouvé aux normes militaires IP68 et doté d'une alarme en cas de danger. L'entreprise Crosscall est le seul qui propose une garantie sur 3 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba et à sur la Corniche 33 améliorez votre quotidien. boole ñooñu ñëpp pare jiitu. mu ne mu nga boole ñooñu ñëpp nag jiitu ànd ak ñoom. ñëw fekk si leen fii ci kër gi. bokk ak ñoom. xew-xew yi nga xam ne moo fi paase yëpp. xew-xew yi nga xam ne moo fi paase yëpp. gannaaw boo xam ne yónnee woon nga sëñ Habib mu ànd ak ay ndaw yu mat ndaw. mu ne gannaaw boo yónnee sëñ Habib mu ànd ak ay ndaw yoo xam ne yu ndaw yu mat ndaw lañ. ñëw teewal la. ñu ñëw teewal la. te loolu rek doyoon nañu kontaanoon nañ ci. sëriñ bi mu ne loolu rek doyoon na te kontaanoon nañ ci. nga def lii ci. mu ne nga def lii yokk ko ci. moo tax kontaante doon ci ñëw bi mu ne kontaante gi mu kontaante te ñëw gii. xam nañ fu mu dalee waaye xamuñ fu moo tax cant gi. mu ne xam na fu mu dalee waaye xamul fu mu em. moo cant gi fi mu dalee rek la ñuy xam waaye fi mu ne waaye cant gi xam nañ fu mu dalee rek waaye xamul fu mu em it. ndax rek la mag ñi nekkee woon. mu ne ndax lii rek la mag ñi nekkee woon. ndax lu baax ak di ko wax. dox lu baax ak di ko wax. ci imaam Seydi Hadji Malick. mu ne Seydi Hadji Malick. maam Seydi Hadji Malick. ci maam Seydi Hadji Malick. maam Alaaji Abdoulaye Niass. ak maam Alaaji Abdoulaye Niass. nga xam ne lépp ñëpp xam nañ ko. mu ne xam ne lépp ñëpp xam ne ko. yàlla rek lañ seqoon. mu ne yàlla rek lañ seqoon. moo tax mbaax gu nekk defante nañ ko ci seen biir. mu ne loola tax mbaax gu nekk rek defante nekk ci seen biir. jotaay bi du jar di ci. mun ne jataay bii du jar ñuy dugg ci détail yooyu. waaye lépp xam waaye mu ne lépp rek xam nañ ko. ñi ko dundoon. mu ndax ñi ko dundoon. nettali nañ lépp. nettali nay lépp. te lépp rek mu nekk luy sigil lislaam di sigil tariqa lépp rek muy loo xam ne dafay sigil lislaam di sigil tariqa tijaan. di sigil itam ñaari kër yi. di sigil ñaari kër yi nga xam ne ñoo ko bokk. li ko feddali mooy sa ñëw bii tey. mu li ko feddali mooy sa ñëw bii tey. sa wayjur muy. mu ne sa wayjur. maam Alxaaji Mansour. muy maam xaaji Mansour mook baay mook baay benn lañu benn lañu xoon te ñoo ñoom ñaar at mu judd mu ne ñoom ñaar ñoo bokk at mu juddu seq lu bëri ñu gis ko ci leetar yi seq lu bëri ñu gis ko ci leetar yi te lépp rek nekk li ma jiital ci ñaar ñi ma wax mu ne lépp rek nekk loo xam ne mooy lim jiital ci ñaar ñi mu wax léegi yàlla la ak yonent bi mu ne yàlla la ak yonent bi ak Cheikh Tidiane ak Cheikh Tidiane ak mbaax goo xam ne. ak mbaax goo xam ne. jëm na ci mbindeef yëpp. jëm na ci mbindeef yëpp. emale wuñ ko ci kii tijaan la wala kii leneen la. emale wuñ ko ci kii tijaan la wala kii leneen la. ndax ñoom suñ sañoon. ndax ñoom buñ sañoon. kuy dox rek te nekk doom aadama rek. kuy dox te nekk doomu aadama rek. ku baax ngay doon ku rek ngay doon. moo tax def nañ ci li ñu war a def lépp. mu ne looloo tax def nañ ci li ñu ci war a def lépp. te seen def-def yi ak seen jëf yi. te seen def-def moo ñu indil jotaay bi tey. ak seen jëf yi moo leen indil jotaay bi tey. ñu ngi gërëm bu baax ñu ngi sant. mu ne loola tax sëriñ bi nee na ñu ngi gërëm bu baax tey sant. ba nga ñëwee yow itam. mu ne ba nga ñëwee yow it. ña nga tasee toon. ña nga tasee toon. imaam Hassan kenn la ci. imaam kenn la ci. cheikh Mouhamadul Makki kenn la ci. cheikh Mouhamadul Makki kenn la ci. sëriñ Haadi sëriñ Aqibu. sëriñ Haadi sëriñ Aqibu. sëriñ Mouhamad Cissé. waaw Serigne Serigne Mbaye Thiam mu Baye Amadou Thiam. Serigne Mbaye Thiam mu Baye Amadou Thiam. moom bët bu set mu laajte la Serigne Mbaye Thiam. ndeysaan ndeysaan moom itam yaram moom moo xaw a sutaat. Serigne Mamoun ak Serigne xam ne dem na yàlla na ko yàlla yaram. ñooñu ñëpp. mu ne ñoom ñëpp. benn ngeen nekkoon. benn ngeen nekkoon. benn googu ba léegi du séddeeku mukk. benn googu nag du ku mukk. te la nekkoon démb rek mooy li nekk tey. te la nekkoon démb mooy li nekk tey. ñu ngi gërëm yàlla ci loolu. mu ne ñu ngi gërëm yàlla ci loolu. di ñaan itam. di ñaani nag. loolu yàlla na sax faw. loolu yàlla na sax fow ci njaboot gi lépp. ci njaboot gi lépp. ci ñaari boor yëpp. ci ñaari boor yëpp. li nga xam ne moom lañ seq bëri na ci anam yëpp. mu ne li nga xam ne moom ngeen seq bëri na ci anam yëpp. man amoon naa fa ziyaara bu may ñëw foofu ci waawoon at mu jot. ci sëñ Maodo Touré mu ne moo amoon na ziyaara boo xam ne at mu jotaat mu ñëw foofu ci sëñ Maodo Touré. nuyu si ko ziyaara si ko indoo ak indoog moom. nuyu si ko ziyaara ko indoog moom. buñ demaan ba weeru koor yu jege te defuñ ko sax dana ma téléphoné ne ma sa bi jot na te waxoo ci ba tey. weeru koor yu jege. te defu ko sax dana ko téléphoné ne ko ah sëriñ bi sa sa bés bi jot na de bu demee ñu dem gana ji ko mu ne bu boobaa mu pare dem gana ji ko lépp rek li muy dëggal mooy ñaari kër yi benn rek la mu ne loolu yëpp li muy dëkk dëkkal mooy ñaari kër yëpp benn la ñu nekk fii mooy ñu nekk fële ñu nekk fii mooy ñu nekk fële rek ñoo bokk ay baay ñoo bokk ay maam mu ne ñoo bokk ay baay ñoo bokk ay maam ñii jarbaat fii ñooy jarbaat fale lii ñii jarbaat fii ñooy jarbaat fële ñii sët fii ñooy sët fële ñi sët fii ñooy sët fële ñii doom fii itam ñooy doom fële doom fii ñooy doom fale moo tax ñii ñaan yàlla mu ne loola tax sëriñ bi ne na ñu ngi ñaan yàlla sa jotaay sa jotaay yal na ko yàlla yàggal yàlla yàggal yàlla yàggal ci wér yal na la yàlla yàggal ci wér yàggal la ci def lu baax yal na la yàlla yàggal ci def lu baax yàggal la itam ci biir mbokk yi yàggal la ci biir mbokk gi en bi lum diis diis rek en bi lum dees diis diis yal na ko yàlla enu yal na ko yàlla enu ba nga xam ne doo ci am benn coono ba nga xam ne doo ci am benn coono dafa am benn nit ne dafa am benn nit dama doon ñaanal ne en bi yàlla na oyof mu ne dafa daf ko doon ñaanal ne yàlla na en bi oyof. benn mag a toog. mu ne fekk benn mag a ngi toog. mag ñu ne ko en bu oyof lu ko nit di defee. bu oyof lu ko nit mag mi toog ne ko en bu oyof lu ko nit di defee. mag mi toog nekk en bu oyof lu ko nit di doyee. ñaanal ko mu diis te yàlla enul ko ko. ñaanal ko mu diis te yàlla enul ko ko. moo tax ñu ngi lay ñaanal mu diis diis na ko yàlla. ñu ngi lay ñaanal lépp lu mu diis diis yàlla na yàlla enu. yàlla bu ci am benn yàlla bu ci am benn coono. te yàlla defar. te te yàlla na yàlla defar. xol yi defar jëmm yi. defar xol yi defar jëmm yi. ci anam goo xam ne masuñ ko am. ci anam goo xam ne masuñ ko am ci foofu. yàlla mën na loolu yàlla la ko defal. yàlla na man la loolu yàlla na la ko yàlla defal. wax naa barki démb ne. mu ne wax na barki démb ne. Baye Niass radiyallahu anhu. Baye Niass radiyallahu taala anhu. dafa wax ne jamono jii. mu ne dafa wax ne jamono jii. ku ci góorgóorlu tuuti rek. ku ci lu tuuti rek. yàlla mën na laa defal loo xam ne sa baay mënu ko woon. yàlla mën na laa defal loo xam ne sa baay mënu ko woon. waaye ne bu mu tax nga foog ne yaa ko ba tey ci barkeem rek. mu ne buy tax na nga foog ne yaa sut. te loolu ci barkeem rek moo tax ci barkeem rek nga ko amee moo tax ñu ngi ñaan yàlla mu ne loo tax ñu ngi ñaan yàlla li tasaaroo ci baay li tasaaroo ci baay yi ci maam yi tasaaroo ci maam yi ci barke ci barke maqaama ak maqaama ak wilaaya lépp yàlla na ko yàlla dajale ci yéen yàlla na yàlla dajale ci yéen defar lépp loo xam ne seen yéene la woon yàlla na yàlla defar lépp loo xam ne seen yéene la woon pour mu defaru pour mu defaru réew mi itam di Sénégal réew mii di Sénégal ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defar ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defar li fi julli ñi bëgg li fi julli ñi bëgg yàlla na ko yàlla matal yàlla na ko yàlla matal yàlla na ko sottal yàlla na ko sottal yàlla na fi jàmm sax yàlla na fi jàmm sax lëjal na àddina lépp mas mii nga xam ne lëjal na àddina lépp ñaan yàlla mu demee ko sëriñ bi ñu ngi ñaan yàlla mu demee ko demee ko ci Sénégal ak mboolem addina bi demee ko ci Sénégal ak mboolem àddina bi ndax ragaloo na nit ñëpp na mu ne ragaloo na nit ñëpp waaye nag mënta fexe ba nekk yàlla moom mbas mi mu ne moom mënta fexe ba nekk yàlla moom mbas mi yàlla mi fi nekkoon démb njëkkam yàlla mi fi nekkoon démb moom njëkkam moo fi nekk itam gannaaw moo fi nekk moo fi nekk gannaaw bu mu demee it. yàlla demee lépp. yàlla na yàlla demee lépp. yàlla boole wattu. yàlla na yàlla boole wattu. ci lislaam wattu ci gëm yàlla. ci lislaam ak ci gëm yàlla. yàlla na yàlla saxal diina lislaam ci réew mi. yàlla na yàlla saxal diina lislaam ci réew mi. yàlla na ko yàlla dooleel. yàlla na ko yàlla dooleel. yàlla na yàlla saxal tariqa tijaan. yàlla na yàlla saxal tariqa tijaan. yàlla na ko yàlla dooleel. yàlla na yàlla dooleel. lay gërëm bu baax ci tànk yi ndax. sëriñ bi ne imaam mu mu ngi lay gërëm tànk yi nga ñëwee fii. xam nañ ne diis na lool. mu ne xam na ne diis na lool. soxla yu bëri sa kanam. soxla yu bëri sa karam te su fekkoon ne teel nañ ko yëg itam. mu ne su fekkoon ne teel nañ kaa yëg it. ñëpp dañu gën teeru. ñëpp dañu gën teeru la. waaye dañ ko yéex a yéeg sànq. mu ne waaye dañ kaa yéex a yéeg sànq. waaye ak loolu yëpp ñii. mu ne waaye loolu yëpp ak yëpp. ñi jege ñëpp ñëw nañ. ñi jege ñëpp ñëw nañ. Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé mu ngi nale. Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé mu ngi nale rakkam. sama rakk la. Mhm. moom moom ñoo bokk ndey ak baay. moo ñëwoon jàll si ci dëj Pape Malick bi. dëj Pape Malick bi waaw. kii dend ak moom itam Cheikh Tidiane Mouhamed Zeynab. Cheikh Tidiane Mouhamed Zeynab moo toog nale moom it. moom itam nijaay la ci ñun. waaw. kii dend ak moom. mooy Cheikh Mouhamed Cissé. taawi Cheikh Imaam taawi Imaam Hassan Cissé moom it. Ibrahima Baye Wade mu ngi nale. Serigne Baye Wade mu ngi nii toog mu xaddam la ci kër gi. Serigne Hassan Cissé mu nga nale. Serigne Hassan Cissé mu nga nale toog moom it. suñu doomi bàyyi la. Serigne Ousmane Cissé mu Serigne mu ngi nii toog moom it doomi bàyyam la ñoo bokk bàyyi. Serigne Omar Dame Mahmoud mu ngi. Serigne Omar Dame Mahmoud mu ngi fii. ak seen waa kër. ak seen kër. Cheikh Tidiane ak Baye Tuuti. Cheikh Tidiane ak Baye Tuuti. ak waa ñoom ñëpp kër gi ñoom ñëpp teew